Ninguém sabe onde se begin feccum dir bu nexé nday ja japp ca mbag ya waw inko dhl jappo sel liggey daal di boole ak mam lay lum ginnaw bañu défaraté place ba ba mu yànji ngir satisfaire sen clientèle mani sen jaxlé jeex lepp lu jëm ci walum matériel ñeel walum construction bâtiment wala matériel bo xamante lepp lu jëm ci walum métallique la agriculture ba ci aviculture demal séti ji ki di mam lay lum mam lay lum mi nga nga xamante ni taaralaat na place bi indil leen ay matériel de dernière génération je dis bien matériel de dernière génération nouveauté la leen indil waaw waaw maam lay daal di ne dugg ci place bi te sa aajo fajuwul loolu jóge na fi bis ni ki tey waa INCO ginnaaw ba ñu doolee cere yokk ñeex daal di indi ay matériel yu bees tàkk dugg ci biir place bi dem seeti ji taabulu Baye Gueye bële mu détailleel ñu ana lan moo nekk ci table bi euh, bâtiment am nañ fi lu ñuy ñuy euh, euh, bétonnière nga avons ne mélanger béton armé bi am nañ fi lo xamné tam liñ wax vibrateur euh, nga xamné moy mélanger toujours ci cadre bobu am nañ fi aussi d'autres matériels yi nga xamné ne manuel la tel que les marteaux les cisailles yooyu da fay dugg ci walu construction. ay perceurs aussi yi bënn miir gis nañ ko fi dé waaw yi bënn miir moy mooy wax les perceuses électriques. Euh, am sax innovation bu bees te dañuy on parle de perceuse à batterie mhm. mooy batterie nga ciy dugal mu percer le mur parce que ça soit mur bo xamné cloison la brique ou bien mur bo xamné ni euh, béton la. tay suñu waxé ci walum construction bâtiment waye fekk nañ fi lépp lo xamné ni dafa jëm ci walum métallique tay menuisier métallique ci coono bu nek la ñuy daj ci ngir daal di dagg verre wala rek ñu daldi di dagg li nga xamné ni mom modi walum wàllum weñ ku dugg en sa jaaxle daldi fiy jeex yan xétu matériel ngeen fi am. Pour des matériaux yi nga xam ne dafa dellu ci wàllu métallique am nañ yu ñuy tuddee des euh, machines yoo xam ne day couper du fer c'est des machines électriques des couper du fer euh, ñi nga xamante ne aussi euh, lii toujours ci cadre métallique am nañ ay postes à souder yoo xamante ne menuisier métallique yi dañ koy utiliser jàll nañ sax ci poste yoo xam ne day jóge ci poste bobine dem ci poste électronique donc menuisier métallique itam dañuy gis seen bopp bu baax am aussi li ñuy wax scie électrique yoo xamante ne da nga ci dugal mèche mu daggal Euh, benn métal wala lu mel noonu waaw yëpp am nañ ko. ñi nga xamante ni ay menuisier bois lañu tey nañuy raboter bois bi seeni loxo yàqu na coono bi nga xamante ni moom lañ ciy rek ba ñu ñëwee tamit gis nañ fi machine boobu. waaw am nañ fi rabo li ñuy wax rabo électrique.

da lay épargner beaucoup de yoo xam ne physique yoo doon def da la koy épargner maintenant machine bi à la place moo koy def ak yeneen xeet. jërëjëf ci sa ginnaaw ñu daal di fiy gis ay mallette yoo xamante ni yànj na lépp lu jëm ci wàllum outil gis nañ fi li nga xamante ni nii tey mën nañ ne ay tënaaj la yoo xamante ni tey moom mooy dagg weñ yi soo doon ñuy dellu si waatal tuuti ci mallette yi lan ak lan la composé wu. maladie yi am na maladie yoo xamante c'est pour des informaticiens nga xamante dina am ay testeurs ak des appareils en miniature yo xamante xam nga électroniciens ak informaticiens souvent li ñuy liggéey yu sew lay doon am nañ maladie boo da fay depp ak lool am na boo xam tam maladie mécanicien la que ça soit mécanicien général ou bien mécanicien automobile surtout mécanicien automobile am nañ benn maladie bu ñuy wax maladie 142 pièces ak maladie 97 pièces bo xamante da fa may clé à cliquer ay pinces comme niñ ko waxé ay marteau nga xamante toujours le mécanicien da koy utiliser même plus on a une mallette boo xamante roulante la nga xamante ne mën na constituer sax euh, ci benn atelier euh, le luy près liggéey boo on a mën a liggéey ci oto bi mën na day nekk ci mallette roulante boobu. wàllum plomberie lepp lu jëm ci walum robinet affaire yoy noonu tay suñu dëkkee fi nga xamanteni rek mom modi ci INCO dinañ ko fi fekk. xam nga INCO ci walu li ñu wax recherche et développement dañ ci liggéey liggéey bu bëree bëri bu njëkk ba INCO. D'aul def plomberie mais les gis nañ dugg ci robinetterie day def robinet day l'eau chaude et l'eau froide ay mélangeurs ay colonnes de douche yépp léegi INCO da koy def même au delà de ça sax day defaale ce qu'on appelle les interrupteurs ci wàllu électricité. Hmm. ñu daal di ñëw ci boutique bi mu yànj loolu ci wàllum décoration waaye tamit yànj ci li nga xamante ne moom moo lumière mu mel ni loolee ab innovation de plus la. waaw mooy li ma doon wax léegi rek bu ba aussi euh, interrupteur kenn xamewu ko woon INCO li ñu ko xamee woon mooy outillage mais léegi dugg dans le domaine de l'appareillage électrique tel que les interrupteurs prises télévision prises informatique ainsi de suite am na lumière yi nga gis ni c'est des spots léegi xam nga spot moo xew xamante ne boo liggéeyee sa kër salon que ça soit salon wala séjour euh, euh, plafond bi dafay nekk staff staff boobu euh, kii yi nga ciy dugal spot yi nga ciy dugal mu am deux effets benn bi effet de lumière la beneen bi mooy effet d'esthétique pour mu rafet donc loolu inco aussi léegi dugg na ci daal. suñ ne liggéey dinañ wax wàllum sécurité que ça soit mooy habillement tenue bi ñuy sol dàll ba ci ay casquette euh, tey ouvrier bi nga xamante ni INCO jug na ngir aar ko ana nan la ko fas yéenee solalee laata muy wàcc sur le terrain dem ci palaasu liggéeyu kaayam. boo xoolee ouvrier bi de la tête aux pieds. lépp incorporer ko de la tête parce que y a les ce qu'on appelle les casques de sécurité nga xamante tay bo boo un maçon wala ko xamné da ngay liggéey dans un bâtiment mo am brique bo xamné ne dafa joggé ci kaw bu dalé sa bop casque bi mo lay sécuriser Amna tout ce lu ñuy waxé aussi euh, casque anti bruit bu fekkee da ngay liggéey di dagg euh, tool wala lo mëna dag wala nga yor machine bo xamné da fay def beaucoup de bruit da ngay jël depp casque de sécurité bi moy protéger si si sa dégg tamit des lunettes de sécurité benn bi lunette de soudage la pour kuy souder ak benen bi lunette de protection pour ko xamantene da fay liggéey comme mu yor mël mom des débris qui sautent débris yoy day dal si euh, lunettes yi nga xam da koy protéger sa léegi sa loxo aussi amnañ ay gants yo xam ñu ko tuddé gants anticutteurs nga xamantene tay bo yoron yoroon liggéey ci ay verre glace wala ngay liggéey ci couteau moom de frais protéger contre la coupure Euh, comme ni nga aussi il y a des tenues de travail lourds et légers en période de froid ou ngay mécano mun nga sol lourd bi nga koy nga koy liggéeyee nga xam protéger la sécurité aussi day dem jusqu'au pied avec des chaussures de sécurité yi nga la tête de la de la de la de la chaussure et recevoir un poids considérable vous bu que lu am poids dafa jóge ci kaw dal sa tank aussi mu mën la protéger et d'aller protéger en même temps ci suufu dal bi parce que bo jógi won tey lu melni punaise wala pointe du dugg parce que c'est bien protégé dal bi dafa répondre aux normes. ku jënd di nga soxla ñu daal di lay livrer sa matériel tey bu ñu ñëwee fi nga xamante ne moom moo di ci jàppoo seen la liggéey INCO est-ce que tey Mame Laye dina liggéey ci lépp lu jëm ci wàllum vente en gros en détail ak li nga xamante ne moom moo di wàllum livraison. Euh, en gros c'est notre fort parce que en gros parce que nous recevons beaucoup de commerçants donc vente en gros mais aussi il y a la vente en détail tu vois l'entreprise, tu vois le client particulier ou des livraisons aussi une affaire là parce que souvent dañ les livrer avec suñuy euh, véhicule donc dañuy def en même temps la livraison adresse ak numéro de téléphone qui leen client yi mën a adresse bi on a un numéro fixe boo xamante ne le 33 822 1104. Nous sommes ngi sur la rue Galandou Diouf am na pharmacie bu au niveau de Dakar Nous koy la pharmacie de l'Islam, c'est une pharmacie connue donc ñun ñu sur la rue Galandou Diouf xaw a dem croisement ak la rue euh, l'avenue Blaise Diagne. d' accord fàttaliwaat ñu numéro bi numéro bi moy le 33 822 11 adresse mail bu ñu mëna mën mail bi moy dslfrère frère arobase yahoo point fr Baye ngi noonu leeral solo ku ci bëgg en gros en détail ta walum livraison bi ñoo la koy yabal ci seen auto matériel bi du xoosu du yàqu ak sécurité bu assuré indil la ko ba ci say tank jëlal adresse bi ñoo ngi ci Dakar, ci 92 rue Ngalande Diouf seen numéro de